magam ji nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatoo ne ginnaaw bu nu sante yàlla sant Serigne Touba ne sant Cheikh Mamadou Fadal ne sant sunu ñaari waajur ne Alsaan ñoo ngi lay delloo siyaar bu baax. bég nañ lool. nee di la xamal ne bokk yëpp bég nañu. nee nga sa biiri wax. nee nga sa biiri wax. Moustapha Mbaye. Moustapha Mbaye. daaru Moussa mujj ànd. barki bi daaru Moussa ngeen mujj ànd. nga wax ni yaa ko bëggal sa bopp. nga wax ni mustafa yaa ko bëggal sa bopp. loolu nag. loolu nag. amul lenn amul lenn lenn lenn luñ ci napp. ndax ndax benn. magam jëmm nga. yow magam jëmm nga. yàlla seetaanu la. te yàlla seetaanu la. yàlla teral na la. ni mu terale ñëpp. ñaareel ba. man boo nee sëñ Touba rek. man boo nee sëñ Touba ci yow dara. lii nga def nag lii nga def nag. famille bépp bég nañ ci. ñaareel ba ñaareel bi. li nga wax ni da nga ko def ci njaboot li nga wax ni da nga ko def ci njaboot gi. ñu ngi ñaan ci barke Cheikhul Khadim. barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla dooleel la ci. ndax wax nga ni. ndax wax nga ni. du toujours yaa ngi Sénégal. waaye boo fi nekkul. sëriñ bii. muudu mbuub mu baax mii. baax mii di kenn ci yow. kenn ci yow. di kenn ci yow. mais su la bëggee jot. dana la mën a jot. Moustapha Mbaye nag. te Moustapha Mbaye. sama rakk la ñoo bokk ndey. sama rakk la bokk ndey ak baay. kon du ma mat seede ci moom. waaye ku baax la. waaye Moustapha ku baax la. as góor la. as góor la. ab julit la. bañkat la. bañkat la nangu naa liggéey kon nag ginnaaw yow la ci yow la mujj def vidéo. ginnaaw ci yow la mujj àndal def yow vidéo. te boo yable woon rek mu doy. te boo yabaloon Moodu Mbaye mi rek Moodu Mbuub rek mu doy. Moodu mii di sunu mbokk boo ko yabaloon rek mu doy. nga déplacé wu ñëw. nee nga déplacé ñëw. gàmm gi di ginnaaw suba. gàmm gi di ginnaaw suba. ngay jëwriñu yonente bi ngay jëwriñu yonente bi. ne jàkk jot lool. kon kàddu yi nga wax. gëm la lu ñu gëm la. lu ñu wóolu la lu ñu wóolu la. ñu ngi ñaan ci barke Sëñ Touba amuñ mi nga xam ne amuñ lu dul moom ak barke sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom jublu yonent li nga mébéti Moussa Mbaye yébét ko njaboot gi ne yàlla na nga ko yàggale suñu xol sedd na barke sëñ Fallou famille bépp seen xol sedd na jërë ngeen jëf bu baax la mën dil nee na da lay seereel loolu ne lu ko yàlla ma sa war a dëgg ne bokk na ko man ñoom ñëpp a ci yam sax waaye Moustapha ku ma yërëm la ku ma dimbali la nee na njàkkum dox bi mu amee daa root andil ma nee na maa ngi ñaan ci doori sëñ Fallou lépp lépp lu koy jaaxal bu ko gis jërëjëf jërëjëf jërëjëf eh, wuy ma